tremblement de terre moo am démb ci dëkk bi journal Le Quotidien moo ko bind waxul nag terre di suuf waaye terre bi di train express régional bi bil yéene kay bi jëf yi wandal ju mat sëkk la ci yoonu saxaar yóbbu ba mu yi yor système signalisation si njiital bi nee nañu dafa waaru ci lam fa gis ba mu demee démb nee na li ñu def ñi ko def def nañu jëfi wuyu def nañu jëfi wandal def nañu jëfi criminel def nañu jëfi nit ku silwisewul soleil national dolli ñu ci ne gars yi yore train express régional bi porté nañu plainte contre x ba ubbi nañu ci ab enquête enquête kay nañu ki jiite ab x di Mountaga Sy wax na démb ne li xew tax na ba lu mat fukki junni doomi aadama ak juróom baaxowoon doon jël train express régional bi doon dem ba kumba di catastrophe moo naroon a am ci réew demoon su ji câble yu teer bi dagg ca lu mat 60 yóbbu jiital Senteex di Abdou Ndéné Sall mi ngi xam ne ci xët mu njëkk journal bés bi la journée filmé nañu leen réew mi quotidien xamal ñu ne waa APEX ginnaaw bi ñu ñaawloo jëf joojee nee nañu duñu ko bàyyi mu jàll danañu porter plainte ñi def sabotage gi li ñu def dana leen wex xàtt ndax fu ñu jaar danañu xam ñooy ñan ki ñëpp xam mooy kan ci réew mi di Aminata Touré mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur journal bi nañu moo législatif yi ñu jëm loolee ko Macky Sall dénk yéenekaay bi nee nañu am na fu mu ca mane moom Aminata Touré waaye am na fu mu ci tële maanaam mimi mi ngeeki atu ngir doxal ko Macky Sall dénk waaye mi ngeekub handicap boo xam ne waree su koo négliger àndub Aminata Touré ak Macky Sall tribune li mu ci gis ba bind ko moo di ànd fukki at yoo xam ne jurul dara booy seet maaram ak biraan lañu ànd ñu tàqaliko wuñu yéenekaay bi nañu teyit bu ñu fàttali ko moom Aminata Touré moo fi a def troisième mandat ba dañuy wax mu jóge législatif yi ñu jëm la Sénégal nee nañu waa a laay fa nee nañu du jur jàmm ci benn bokk yaakaar bu ñu moytuwul fanweeri département ak juróom-benn ci réew mi dinañu mujj ci Yewwi ñaar fukki département mujj ci Wallu Sud Quotidien nañu ko kawal opposition bi bëgg mu di nguur gi ab kurpañ tipp mu ne ci suuf këpp dil bi ñu tekk ñoom waa Wallu Sénégal ak waa Yewwi Askan ba def seen seenuk alliance ku bëgg a xam fi ñu ko tekk xooli ko ci source nee nañu kii di Karim Wade ca Doha ga ca Qatar fa di négocier ab ànd maanaam ab union seen digg ak ñoom Ousmane Sonko ba ñuy signé accord bi yéenekaay bi nee nañu Mamadou Lamine Thiam bu Parti démocratique Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall bu Yewwi ñoom ñaar ñoo signé accord bi keroog dimanche ci guddi waa Parti démocratique Sénégal am nañu jur jàng ju ju ñu war a ndax l'observateur mi ngi ñuy ci investiture yi loolee moo ko mitti ba tax mu dem yoonam Les Échos nañu Mayoro Faye nee na pare na ci PDS te lépp nag Karim Wade la Karim da koo wor da koo tarayir Karim Wade purux la du gërëm ñamu daaw ndax guddil naa ko fu nekk bëccëgal naa ko fu nekk waaye gisul loole Les Échos nañu te nag du Mayoro Faye rek moo gedd génn PDS ne Cheikh Mbacke Dolly moom it dem na yoonam moom it nee na parti bi da ko wor ba tax na diggam ak PDS c'est fini jullik tubaab li ñu jël kii di Abdou Mbacke Dolly teg ko ci kawam loolee moo ko ñuluk Cheikh Mbacke Dolly nee na paakab ginnaaw la ko waa PDS jam liste parrainage yi ci élection législative yi sax nee nañu ci ñi déposé woon seeni liste am na ci ñoom ñeent ñu ñu rëkkale Bougane Gueye Dany la Adama Faye Serigne Mboup ak Fadel Barro